te ñépp xam ni jar na wax luy jëme Tuuba ca kanam diglul ma wax yow xamul bul diglu waxi ku xamul amaana mooy wax lu wérul ci mbiri Tuuba ca kanam mbooloo la moom poloti guñ te naxe wuñ fuñ mën a toll ñoo ngi luy jëme Tuuba ca kanam mbooloo mu Tuuba soxal ñu ànd dem laa ji ci Sidi Muxtaar dëggalal lii moo di Tuubaa kanam mbooloo la moom li dig bëggam bëggug sëriñ bee dig bëggam mbindam sëriñ bi ca lim di teel na Tuubaa kanam lii moo waral mbooloo mi woo ku di murit yow lañu woo te ñépp ñëw ñu àndandoo ngir jëme Tuubaa ca kanam lii tax ñu ciy tàllal loxo ku di murit def ci loxo ñu ànd jàppantey loxo mooy jëme Tuubaa ca kanam moom li laaj murit bu mooy ñaari téeméer weer wu mooy mag di ndaw foo mën a ne ngir jëme Tuubaa ca kanam yow ñaari million yi murit lañ soxla ay ca leen murit looy xaar ci bokk yow murit ngir jëme Tuubaa ca kanam yow ñaari million murit mi joxe miil ci weer murit mooy ñaari milliard yow murit mooy jëme Tuubaa ca kanam buñ ko defee ci at mu mooy nit milliard at mu ak ñeenti milliard at mu ne mooy jëme Tuuba ca kanam murit bu dee danga dëggal dëkk bi war na laa soxal defar ko war na laa jaral bokk ci Tuuba ca kanam koy dàkk sëñ bi lam bëggoon ne ko dëkkam bi la bëggoon ku bëgg a jëf ci lim bëggoon na jëf ci Tuuba ca kanam ba ku naa bu ma sëriñ bu mag bi lum bëggoon nee leen ko Touba la bëggoon na wuy si Touba ca kanam Touba ngi soxlay fajukaaye soxla na it ay jàngukaaye soxla na ndox mu neex ta doy lii jëme Touba ca kanam Touba ngi soxla ay régol soxla na leer bu yaa gubeel lii mooy iteem nañ ko amal ngir jëme Touba ca kanam Tuubaa ngi soxla e godorong soxla yu rond te bu amoon ay météro mu yay ci Tuubaa ca kanam képp ku yëg ni lum joxe sëriñ bu mag bi la ko jox kookee la sëñ bi bu jox loxo ci Tuubaa ca kanam na ñépp maase wuy si ko jëfal sëriñ bi jar na ko defar dëkkam bi ñor na ko ay coce Tuuba ca kanam yow raay bi ñëw gësu la ci kaliyeer ba wey tuju la ci jumaa ji kenn sasu ci sasul ci Tuuba ca kanam maa ngi taxawlu fii di ñaan mbooloo mi yàlla sàmm leen ñépp ñëw fekk si ñu yóbbu Tuuba ca kanam amiin ci barkeb Ramalaan laa ko wayaat yal na nu naan ci kaw sara tabbi jinaan dëkkee fa tuuba kanam amiin ci barkeb ramadaan laa ko yal na nu naan ca kaw sara tabbi jinaan dëkkee fa tuuba ca kanam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jërëjëf borom tuuba xaadimu rasulillah